ilaha illallah la ilaha illallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit rawatina bokki taalibe yi bokk yi ñoo am mbégte dellusiwaat ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayub liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la muy waajal ngóobum saaño ma nekk ca tooli lagan Lagane di daara Serigne Saliou Mbacke joo xam ne moo ko fi bàyyil Serigne Cheikh mu wéyal liggéey ba di ko fa liggéey loolu nag moo tax ñu toog fii ci këram gi nekk ci corniche fas yéene woote liggéey boobu nga xam ne Serigne bi nee na naka jekk ku ne xam ne ne njabootuk Saloum ñoo ko daan taxawee liggéey bi ànd ak njabootuk Serigne Touba gi ko yàlla booleel. waaye nag amoon na jëwriñ joo xam ne Serigne saaliwoo ko tànnaloon boppam jox ko daara joojee ca kookee moo di Samuel Sarr mu Serigne Saliou ànd ak sëriñ Youssou Dieng mu ànd ak bokki taalibe yii mu toogal nga xam ne mooy jël kàddu ci turu sëriñ bi su noppee ñu jox sëriñ Moustapha jaxate su noppee ñu jox sëriñ Ndonga Daraame mi wax ci turu waa Saloum kon ni ñuy def dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Youssou moom sëriñ Naar. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu sant yàlla di julli ci yonante bi di gërëm Cheikhul Khadim di ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu sëriñ Saleh yàlla ko suñu borom yàggal te wéral ko. ginnaaw bu ñu jiitalee ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Xaadimul Xaadim yal na ko suñu borom yàggal lool te wéral ko sunu kàddu gii nag sabab si mooy waajtaayu liggéeyub ngóobum daaree Lagane ñu jàpp ko le 30 novembre muy gaaw tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm sëriñ bi nag di ci soññi mboolem taalibe yi yëpp woote bi nag ñoo ngi ciy jiital njabootuk Cheikh Issa Dieng. li si jiital sëriñ Cheikh Ali mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Issa ak sëriñ Sidi Naar Jenn mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Naar Jenn ak njabootuk sëriñ Naar Jenn gépp ak soppi sëriñ Naar yeeg mbokk mboolem bi yëpp ginnaaw bu nu fàttali ko sunu jàmbaar ji Cheikh Abdou Latif di ko ñaanal borom dolli ko yërmande dolli ko tawféex dolli ko ngërëmu sëriñ Touba ak ak ak doomam ja Cheikh Souhaïbou Jenn mi nekkoon xalifab Cheikh Mamadou Lamine Jenn ndax waxtu wi daaw fekke woon nañ liggéey bi ñu di ñaan yàlla leen suñu borom dolli ay tawféex ginnaaw boobu nag ñu ngi woote tàmbali woote liggéey bi ci tund Njenne Lagan ak li ko wër. ci Njenne Lagan Xay Mbayaar Daarul Mannaan Mesere Naarga Teewlu Ngaari Daaray Siidi Daaru Salaam Daaru Rahmaan Curangeen ak Cele ak Tayba Xay Barka Baxdaat Lansaar Mbar Touba Njenne bu dee fii ci Touba ñuy woo waa Touba Lansar ci njiital Serigne Cheikh Diop ak waa Ndande Fall ci njiital Baye daam fay ak waa Njabel Goussaas ci njiital Serigne Cheikh Ndak ak Serigne Cheikh Dieye di séentu ñëpp ci liggéey bi nañu leen ci daan séentoo di leen sant itam ci taxawaay yi ko jiitu woon di beral nag ak cant gu jëm ci jëwrin Samuel Sarr moom mi nga xam ne dafa féetewoo daaree Lagan ab taxawaayantoom rafet ci lool ñu di ko sant ci turu sëriñ bi di ko gërëm di ko ñaanal itam suñu borom gën koo man loo bu baax ndax ku am yéene la ci barab ba ku ne gis na itam taxawaay yamu fay taxaw kon ñu ngi koy sant bu baax ci turu sëriñ bi di sant itam suñu bokkum taalibe Babacar Touré ndax ku ne xam na ne liggéey taxawaay yim ci taxaw ci wàllu dem bi ak dikk bi ak sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye transporteur moom itam bokk ci kër gi kon nag sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp di ci xaar ñëpp di ñaan itam képp ku fa teg sa tànk yàlla na sunu borom faj say aajo ci saahir ak baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullah di sof sunuy kàddu ci sëriñ Yuusu Jenn mi nga xam mooy jëwriñu liggéey bi di woo mbooleem njabootu njaboot gépp jiital ci woote bi nag mbooleem lu askanoo ci Mamadou Asta ak mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk di leen soññ ci liggéey bi liggéey bu ñu fonk la muy ndigal loo xamante ni liggéeyub ngóob la di soññee ci mbooleem jumtukaay yi nga xamante nii mooy moom la ñuy liggéeyee biñ ko soññee ci tubaa Darou Salaam ji mel na ne feeñ na ci liggéey ba lool ndax duxuma ba gis kenn ku ne awuma ngóobaan kon maa ngi soññee bu baax ci ngóobaan yi nga xamante ni mooy dagg dugub ji di soññee bu baax ci takkoon yi nga xamante ni ñooy takk dugub ji di soññee bu baax it ci saako yi nga xamante nii moom lañ koy teg di ko dajale ndax ngóobum saañu daa bokkut ak ngóobum dugub ngóobum dugub bari na ñoo xam mën nañoo teg seeni loxo waaye ngóobum saaño am na ci ñoo xam mënuñu ko teg seeni loxo ay saako lañuy la ñuy ëndaale di ko ci teg bu dajee fi barab nit ñiy takk bu ñu wax bu waxtu takk jotee ñu wëlbati ko di ko takk di mën a yanu ak di takk di di di mën a yanu di yóbbu. kon maa ngi soññi sama bopp di soññi mboolem jëwriñ yi di soññi mboolem donga yi nga xam ñoo jaaroon ci kër gi di soññi mboolem mbokki taalib yi mbokki jullit yëpp. te xam ne liggéey bu mat bu liggéey bu mat a fa nekk kon mbooloo mu mat moo fa mën a daje ngir liggéey ko ne ko sëriñ bi bëggee ñoo ngi ñaan yàlla ak yonente bi sëriñ bi ñu dajee ci ngërëm ak ndimbal ci barkeb Seexul di fàttali rek li jëwriñ yi di fàttali muy liggéeyu ngóobum saajo ca tooli Lagane looloo taxa jataay bi te di ko jëwriñ ji waxee Serigne Moustapha ngóobum saaño dafa eh, soxlawoo ay ay ay lu mel ne ngóobaan boobu mu wax ak i takkoon sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp nag te di ci séentu ñëpp te eh, xam le it ne ngóob ma eh, wax dëgg yàlla tool ba mel na nam daa mel kon ñu waajal ko ci pësteef te ñaan suñu boroom mu defal nu ci tawféex ak taysiir sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp nag mbokk yi ak mbokki taalibe yi ñëpp ak mbokki dëkkandoo ya di ñaan sunu borom indi leen ci jàmm ñu def ko na ko sëriñ bi bëggee te daje ceeg tawféexi sëriñ bi sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp te di ci séntu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maam ci wàllu oto yi rek la wax noo xamante ni dañoo bëgg suñu mbokki taalibe yi ñun ñëpp ñu xam ni noo bokk yéene ji noo bokk bëgg-bëgg bi noo bokk euh, xalaat bi nu mën di jàppalante so rawatina fii ci Touba fii ci Touba nga xamante ni néewaa na ñu ciy am chargement bu fees jëm lagan su ko defee ñi mën a ànd ñëpp dañuy ànd ndax jàpp naa ni taalibe bu amoon sa oto bopp jëm lagan gis sa mbokkum taalibe mu jëm lagan di liggéey sëñ Touba da ngay am mbégte lool ci yóbbaale ko ndax xéewal gi la yàlla defal ba nga oto kon nag boo amee oto buñ la jox mu jëm lagan te doo ci def dara nga gis mbokkum taalibe mu jëm lagan war mën a ànd ànd gi moom yërmande rek lay doon waaye du doon lor xam naa loolu lu ñu yàgg def la kon daanaka soññe gi jërul jërul guddal jërul yàggal loolu rek lañ ci bëggoon a wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu leen nuyu di leen ci turu seen seexum seen saaliw ak kilifaam ci ay rakkam di nuyu sama mbokki Saalum yi gannaaw bu ma nuyoo sama kilifa yi toog ci waxtaan wi sëriñ Modou Seck mi nga xam ne mooy suñu kilifa moom la sëñ bi di jox liggéey ci wetu Saalum ga ñu nekkal ko fi ci turu suñu Fallou Seck turu sëñ Modou sekk alaay Cheikh Bamba sëriñ Babacar Seck sëñ Cheikh mu sëñ sëñ sëñ xawsu ak sëñ Dramé sëñ Cheikh Dramé mën na ca uh, baylaa ak yeneen kilifa yi nga xam ne yii nii ñoom ñoo ngi Cheikh digg boobu xam naa lu neex a wax dëkk yee waaye kon ñi dëkk yi nga xam ne ñoo ëmb dëkk yooyu nga xam ne ku dégg dëkk yooyu ma wax lu ne ci diggante bi rek nañ xam ne ci ci ci ñooy ëtt bi nga xam ne moo tax may wax mooy lu mel ni li ko tàmbulee kër njang jaar kër Mosuute jaar kër Yoroolu jaar kër Maamuloo ñëw Taïba ñëw Sokone jaar noonu jaar ci Angale ba jaar Kañmoor ñëw Ngande ñëw Kaffrine ñëw Mbirkilaan ñëw Jaamal ñëw kër Moongoy ñëw kër Njang diggi boobu dëkk bu ne ci diggante bi rek na xam ne it woote bi ci moom la tàmbalee ci moom la yem maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf mbokk yi kon woote baa ngi noonu jëm ci ngóobum Saño ma nekk ca Lagan war a doon départ bi ajuma 29 novembre. bis ba nekk samedi la 30 novembre dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaati gàmm sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla képp koo xam ne teg nga sa tànk lagan wala nga dëgg fa agub yàlla nga dajeeg lëgëni sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ji nga xamante ni moom la def ca dëkk boobee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.